waaleykum salaam wa rahmatullah waax information bi ni nga ko gisee noonu la demee ndax xam nga ni ki nga xam ni moom mooy oustaz Omar Sall jamono yii weesu yëpp gis nga ni mi ngi def ay attaque walla ay kàddu yu tegginiwul jëme ko li nga xam ni mooy xaadara ya waaye rawat na sunu sëriñ Seydi Ahmad Tijani Chérif radiallahu taala anhu wax ci ay wax yu bari yoo xam ne daal jaarul ci yoon te naqari na waa tariixa bi yëpp Nakari itam ñun ñi nga xam ne ñoo yor bi tey di ko werd te gëm ko te wóolu ko mu naqari ñu lool nag donc ñu mënoon a doon ñoo xam ne dañuy jóg fajal suñu bopp waaye defuñu ko ñu jaar ci sart yi nga xam ni moom la réew mi santaane comme dañoo nekk ci état boo xam ni état de droit la boo amee loolu naqari balaa ngay fajal sa bopp war ngaa jóg sol sa dàll dem kalaame ji ci yoon loolu moo waraloon nag collectif international des talibés cheikh officiel bi nga xamee ni Oustaz Omar Sall def na jëfin yii ci ay kàddu wax ay kàddu yu tegginiwul jëme ko ci xadara ya waaye ci sunu wasifa yi ak sunu werd yi waaye jëme ko ci sunu sëriñ Seydi Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu mu naqari nag taalibe yu baree bare ci la collectif bu jóg nag sol dàllam dem kalaami ko ci yoon ba loolu moo waral actuellement information bi nga gis nii muy relaté ci internet bi yëpp loolu mooy sabab bi waaye daal tabarakallahu loolu nag damay wax ni du yem ci Omar Sall rek waaye képp koo xam ne dangaa jógati nag jël ay kàddu yoo xam ne tegginuwul wala jaarul yoon nga jëmee ko ci tarixa bi collectif bi dana jóg jàkkaarloo ak yow ak mboolem mouvement yi nga xam ni ay mouvement lañ ci tarixa bi te doon ay ndaw te am deret ju tàng mën a faj waaye duñ ko def ndax xam nga ni tarixa bi nit ñi mu am dañ leen a yar yar seen ruux yar seen yaram yar seen jëmm ba lépp lu ñuy def ne rek dañuy jóg jaar ci fi nga xam ni noonu la leen ko yoon sante kon Seydina Aliou Wilane bu ko defee daal xibaar bi ni nga ko gisee rek noonu la demee ndax itam nit ki balaa ngay fajal sa bopp rek jugal jaar fi nga war a jaar te mooy yoon ndax xam nga ni nag réew mi am na ay charte ci sunu constitution bi nga xam ni moom la ñu boole moo ñu boole tënk ku ne xam na ni euh, charte yi kenn ku ne war ngaa doxal li nga war a doxal dund li nga gëm te doo gaañ kenn doo sa kenn. waaye koo xam ni saa yooy jógee nag wax rek yaa ngi blessé sentiment jàmbur loolu doon loo xam ni lu war a dakk la ah kalaame nañ ko nag fi mbaxana doone menn te mooy fi nga xam ni mooy justice bu Sénégal te ñu wóolu loolu nag suñu justice te ñu jàpp ni réew mi lépp loo xam ne luy dox la justice bi mi ngi koy jaarale ci yoon kon kàddu yi loolu moo nekkoon. Aynou Mady TV. sa yitte yow taaliba Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bi man Oustaz Habib li ma lay wax mooy télévision la boo xamante ni sa yitte na nekk ci moom. sa abone na nekk ci moom waaye sag njàppandal na nekk ci ñu moom ndax lan nga bégale ko Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane